أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ngi ànd ak yéen ci téere bi kitaabu tawxid tey ñuy jël ñaar fukkeelu bunt bi ak ñeent muy baabu bayaani shay'un min anwaai sihri bunt bi nga xam ne dañ koo sof dañ koo toppal ci bunt bi paase muy leeral lenn lu ay nit di def benn ñu jàpp ne du dara fekk ne ci njabar la bokk wala lenn ñu koy deflu te loolu sharia daf ko boole ci njabar moo tax boroom xam-xam yi biñ ñu waxee njabar ba pare ñu sof loolu yokk ko ci ndax dafa bokk ci xeet yi nga xam ne xeetu njabar la mu ne zakara sarixu huna shay'an min alxawaariq wa kiramati l awliya nee na yokk nañ ci bunt bi lenn ci ay kéemtaan yu ñuy jéem a wone wala ay xarfa fuufa yu ñuy def léeg-léeg ñuy jéem a wax ne diw dey waliyu la lu tax ndax daa puus géej wala dafa dox ci géej gi wala wala wala wala mu ne wa zakara maxtarra bihi kasirun min annaas nee na looloo tax nit ñi bari ci doomu aadama yi daa di waru daa di jàpp ne ñooñu ñuy wax ne dañoo dox ci kaw jaww ji wala léeg-léeg ñu ne dañuy fanaani kaw asamaan wala léeg-léeg ñu ne dox nañ ci kaw ndox yi wala am na benn oto bu doon këpp ñu wax seen tur oto bi taxaw wala léeg-léeg nit jaaxle daal leen di tudd aajoom faju wala léeg-léeg nit feebar wax woo leen wér nee na loolu mbokk yi dafa bokk ci li nga xam ne dafa wor nit ñu baree baree baree bari ba xàmmeetuñ li yàlla moom ak li ñooñu moom
bëggoon laay biir sujud mbokk bi léegi bu muy sujud léegi dafa teg kii kii ci suuf mu nga laay biir ko waaw incha allah waaw bu soobee yàlla incha allah
yaa ngi après tas yaa ngi
nee na bi ngay sujud dama la teg nii sa loxo waaw nee na nii nga def waaw te nii nga nii lay war a def waaw nii lii warul tegu waaw yàqul julli bi waaw daf la ko doon bàyyi loo xeer rek dégg nga incha allah waaw ja jërëjëf jazakallahu xeer kon ñu continuer mu ne yooyu mbir yooyu mbokk yi tey su ngeen di seetlu dafa war doomu aadama yu bare bare bari ba léeg-léeg ñooñu jàpp ne ñooñu dañoo mën ci nguuru yàlla gi dara ay nit waru sax bay jaamu ñooñu ñuy woo ak ñuy ñaan ak ñuy topp mu ne wa zakara maxtara bihi kasirun min annas min ahwali shaytaniya mu ne loolu war nañu baree bari ci ay nit ci ay jullit fekk rek dafa bokk ci pexe seytaan léeg-léeg seytaane mooy def allahu akbar mu may nettali benn waay ci Europe bagage am yëpp dafa réer kalpe bu mu defoon passeport am pièce am yi tout yi doomam gars yi nee nañ mu daal ne mu jaaxle rek mu ne sëriñam yow kenn yaa fi sës yow dong yaa ci mën dara nee na benn waaye daal di ay guddi xaaji guddi rek am ko sone buntu këram daal di koy indil kayit yi mu xool dara manqué wu ci rek mu ne waaye wax kii waxoon naa leen ko waaw loolu pexe seytaane la seytaane mooy def léeg-léeg doomu aadama mu ne gis nga heure bii baaxul de bu ci def nangam nga def ko nga def rek dara dal la ñu ne waxoon nan la ko da nga dëgër boobu da ngay gis ñaari pot lampe yu def nii ñu ne la ba bu i la waaw yu bëri ay lii kenn du ko def ak fii kenn du fi toog ak kenn du ñaan xorom guddeeg kenn du jaay pusu guddeeg ñi jaay ñi kenn du ñaani xal guddeeg naa yooyu yëpp seytaane la seytaane moo tax doomu aadama yi di leen tafu su leen tiitloo ci dara buñ ko defee rek mu def leen dara su ko defee ne ñu continuer ba yowmal qiyaamati loolu dëkk bi kenn dootu ko fi defati wala bu ñu ñaanee kenn mu may leen ci barkeem wala ci nangamam wala rek su ko defee nag ñu daal ne léeg-léeg sax seytaane feeñu nit waaw ci sa jëmmu kilifa bi nga yaakaar mu feeñu la parce que seytaane mën na loolu wala xamu leen loolu seytaane mu ngi dund ba tey wala dafa faatu mu ngi dund day soppeeku wala du soppeeku ah day soppeeku dund ko neex mu mel du ba muy génn sunu maam aadama aljana dafa soppeeku woon kon kay waxi sopp kon bu mel ne keneen waxi noppi dégg ngeen ñu ne la jinne malaaka rek la mënta nekk waaye mun naa nekk leneen malaaka moom mun naa nekk nit ak ginne jibril bu daan ñëw ci yonante bi ban saxaaba lay nuru diheetul kal bi melokaanu saxaaba boobu lay jël ba mu dem gars yi duñ xam kan la fekk moom moo ñëw am na malaaka yu yonante boo xam ne wàcc nañu fekk nit di ziyaara ji mbokk jullitam malaaka bi wàcc ne ko waaye foo jëm nekk nit man de may ziyaara ji sama benn mbokk fii rek naaj bu tàng bii xanaa dafa am intérêt yi ngeen bokk mu ne déedéet xanaa dafa am ngeen a bokk nangam xanaa da nga ngeen déedéet xanaa da ngeen déedéet dama koy ziyaara ji ngir yàlla mu ne man malaaka laa yàlla mu yónni nee na bi nga commencé ba ba ngay yéeg yëpp jégal na la say bakkaar ah loolu nit ñi war nañ cee bàyyi xel bañ cee waru dafa am loo xam ne seytaane moo koy def pour war nit ñi buñ dem ci yàlla tabaraka wa taala mu ne allati xarat kasiran min al awalim nit ñu bari waru nañ ci loolu mbokk yi wal juhaal ak ñu réer ndeysaan moo xam ne jànguñu xàmmewuñu lu riir rek ñu ne yàlla la lu ñu mënta gis waaw léegi nga gis benn waaye mbooloo mu bëri topp ko ñu ne gis nga lii dëgg la bu doon du dëgg kii du am ay nit est-ce que dëgg ci ay nit lañ koy xàmmee nit ñu bëri déedéet surtout diine diine du ci mbooloo mu bëri ndax alxuraan dafa ne walakin aksara annaas laa yaalamuun boobu benn la alxuraan ne laa yaqiluun alxuraan ne alxuraan ne du jeex wa ma aksaruhum wa ma yu'min aksaruhum billah illa wa hum mushrikun ñu ëpp ci nit ñi du ñu gëm lu dul bu ñuy gëm yàlla danañ ci boole bokkaale danañ gëm de waaye ci biir ngëm gi la ñuy laxas ak yàlla ak bu neexee yàlla ak diw yenn saa yi sax am ñoo xam duñ ci waxaale bu neexee yàlla diw rek bu neexee diw loolu mbokk yi dafa bokk ci bokkaale yi dafa bokk ci xeet yi seytaane di waree nit ñi loolu moo tax borom téere bi sof ko ci bunt bi pour ñu bàyyi ci xel mu ne wa zannu annaha tadullu ala wilayati man jarrat ala yadihi mu ne léeg-léeg waa ji jékki-jékki xëcc kurusam rek ndox génn ñu ne ëpp am na benn waay boo xamante ne dañoo ñëw ci benn dëkk pour won mu waa dëkk bi moom nitu yàlla la moom noonu la koy wanee nee na nitu yàlla la bu ñëwee ba ci baas bi ñu ko baasal nit ñi di ko teeru comme gaal lay dugg bu wàccee dex gi rek bu génnee ci gaal gi rek day simmi dàll yi ñoo toog ci baas bi daan ne dàll yi ñëw leen dàll yi ñëw rek nit ñi di yuuxu ah am na ci koo xam ne day xëcc kurusam ndox di génn am na ci koo xam ne day jékki-jékki di la won ay affaires yoo xam ne yooyu yëpp mbokk yi ay mbiru seytaane kese la du mbiri yàlla tabaraka wa taala looloo tax ñu bari ci nit ñi suñ gisee lu mel noonu ci kenn dañ naan kii kii kii kii nitu yàlla la kii waliyu la kii muqaddam la kii xawsu la kii nangam la kii nangam la kii nangam la fekk yooyu dara amu ci seytaane rek la àndal parce que seytaane soo waree sa bopp war sa diine war yàlla nga ànd ak seytaane lëkkaloog moom seytaane da lay jox pouvoir waaye balaa boobu foog nga def ay sacrifice pour nga am yooyu pouvoir mu ne mi man huwa awliyaa u seytaan mu ne ñooñu nga gis ñuy def loolu ay wali yu seytaane lañ am na benn boroom xam-xam bu mag bu ngeen xam turam bu tudd wahid abdusalaam baali moo bind benn téere bu tudd al wiqaaya moom njabarkat bu mag la woon tolloon na ci njabar am pouvoir am kàttan su nit ñi di dem màkk lu ñuy yëg avion ñenn ñi ñenn ñi lu ñuy yëg bateau ñenn ñi lu ñuy yëg ñenn ñi lu ñuy yëg moom ci ngelaw li lay jaar dem ci ngelaw li waaye bi mu tuubee yooyu yëpp daf koo bàyyi bi mu bàyyee njabar xam ne loolu njabar la daf koo bàyyi léegi ñu mel noonu ku leen gis fii ci Sénégal looy wax ah kii wala yu dëgg la kii yàllaa ko nangam kii kii kii kii kii kii fekk seytaan day def loolu luxuskat yi kay xanaa ay wala yu lañ kon wala luxuskat lu muy def da ngay toog fii léegi mu indi la dara mu ne la ma indi la dara nga ni waaw rek mu ne am xanaa wala yu la mais ay seytaan la àndal seytaan yi ñoo ko indi loo bëgg yow nga ni naa nga mu ne la am loo bëgg nga nga mu ne la am ñii ñëpp toog ku nekk mu jox la loo xamante ne dafa wuuti xanaa kon kooku waliyu la léegi nag nit ñi dañoo war a xam awliyaullah ak awliyaul seytaan ñi aliyeeg yàlla ak ñi aliyeeg seytaane nit ñi def loolu dañ ko war a xam suñ ko xàmmewul ñi farak seytaane dañ leen di réeral nax leen dugal leen ci bokkaale dugal leen ci njabar ñu yaakaar na ñu ngi ci diine fekk nekkuñ ci dara dama moo tax ñu war cee bàyyi xel qaala al musannif rahimahullah borom téere bi nee na qaala ahmad xaddasana muhammad ibnu jaafar xaddasana awf xaddasana حيان ابن العلاء حدثنا قبتان بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والترق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والترق الخط يخط في الأرض يخط في الأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبو داود والنسائي وابن حبان وفي صحيح المسند منه حديث بني جلتي بنت بيغا خامني دنجكو dolli ci ak njabar ku tudd ahmad mooy nettali mu mu ne muhammad ibnu jaafar nettali nanu koko awfu nettali ko koko hayyan nettali ko koko qottan nettali ko koko bayam nettali ko neena dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne innal ay- innal ayafa wa tarqu wa tayru min al jibt mu ne dégg naa yonent bi lim ñetti mbir daan ne ci xërëm la bokk ñetti mbir yonent bi lim na ko daan ne mbir yooyu ci xërëm la bokk bu ci njëkk mooy gaaflu gaaf xam ngeen gaaf ah mooy lan lan mooy gaaf lii du la jig lii jiguñu lii jiguma wala lii baaxul ci dëkk bi wala lii kenn du ko def ci dëkk bi loolu ci xërëm la bokk ak lan ak picculu lan mooy picculu waaw war a tukki daal di jël picc mi sànni ko su jaaree ndeyjoor nga ni baax na bu jaaree càmmoñ ii kay baaxul xaaral ma toog te góos la jaar càmmoñ baaxul loolu ci xërëm la bokk ñetteel mooy rëdd am na ñoo xam ne bu ñuy tukki dañuy def ay rëdd benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent ñu bàyyi ko noonu ñu ne bu ñëwee ba ñëw naat ne fukk doog a dugg seen kër wala ñu ne nga wax dara ñu ne laalal suuf laalal suuf nga ni nii loolu baaxul am na ñoo xam ne bu ñu demee ci dëkk ñu togg lekk première lekk bi dañuy tibb ngan tibb mu nag bu ngand daa teg ci suuf daa ne pour borom dëkk bi commencé lekk yooyu yëpp ay xërëm la yii yonent bi wax nii sallallahu alayhi wa sallam muy gaaflu wal insan wal insan ida fataha ala nafsihi baba tasaum daqat alayhi dunya doomu adama su ubbee ci boppam buntu gaaflu aduna bi day xat ci moom ah ah léppay xat ci yow kër gi nga nekk sax day xat ci yow say mbokk danañ la bàyyi parce que ku ñëw sa kër gi nga koy xool kii moom parce que wóor na koo gis di ko daw dootoo def dara ci àdduna àdduna bi day nekk kaso ci yow xoolal ki soxla xal guddi xal xal dafa soxla xal ñu ne ko yii ñaan xal guddi moom baawul te amul almet fu jëm xoolal kii togg xoromam jeex ñu ne ko yii xorom guddi kenn di ko ñaani te amul xorom wala ki soxla puso war a ñaw ñu ne ko puso kenn du ko wala ñu ne la cin kenn du ko yenu ak bëri yéen xam ngeen li may wax ku nekk fii nga toog mun nga cee indi benn hmm? hmm? waaw góor gi ne dafa am ñaari mbir yoo xam ne moom daf ko dund ah nee na benn bi bi mu ngi demee màkk fan yi la ah mu ne dafa dem mbàkke mu ne dafa dem mbàkke war a ñibbisi mu tombateeg àllarba Mhm. kenn du tukki àllarba Mhm. allahu akbar Mhm. waaw Mhm. Mhm. Mhm. ndax tey dinañ watu waaw Aha. ah bis booy watu bis booy tukki bis booy takk jabar loolu moo ma tax loolu moo tax samedi ñëwuma tafsir bi samedi loolu moo tax ñëw ma tafsir ne wax nañ ma téléphone ne ma dañuy maye sama benn élève ne nga ñëw ginnaaw taksaan ne loolu lañ ma wax ma ni xaaral ma dem su ma dem mu julli taksaan del ñëw kër ga mu raajaa sama dars après ñëw ma dem ba julli taksaan ñu ni ma ginnaaw timis la bu doon ginnaaw timis ma ne ah ginnaaw timis ñu ne waaw ma ne man ginnaaw timis duma arrange ñu ne ma foog nga toog ndax yaa koy maye ma toogati ndeke ñooñu ñu naan ginnaaw timis ñoom ginnaaw gee lañ nar a ñëw xool leen 4 heures ba gee wala 4 heures laax ba gee man leen yéen mënoon ngeen maa bàyyi ma dem defi sama dars gis nga bi nga toogee fi ba léegi ñu ngi may woo ñu ne ah xamuñu woon nii lay demee gis nga ndeke ñee ñoom dañuy gëm ne ay ay heure la ñuy tànn nag ay guddeeg ay nangam ak dañuy dem di seetlu ji yenn saa ñu ko xam danaan waaw man dama bëgg ñu wax ma ban bis laay tukki ban bis laay takk jabar ban bis laay def nangam kooku dina wax bis bi moom dafa xam bisam te nag yooyu ngay dégg yëpp kenn du sangu lii kenn du tukki lii kenn du wax lii kenn du doo ci dégg mukk ñu ne kenn du bañ a lekk bis bi ñu ngi ko dégg tey dëkk bis bi kenn du ci lekk dégg ngeen ko dañuy wann ba suur bis bi kenn du ci lekk moom doo ko dégg mukk waxtu bi kenn du ci lekk doo ko dégg mukk loo indi ñu lekk dara des na lu jaamu yàlla ñu indi ay gàllankoor waaw diw diw diwa ko tereeg am na benn takk boo xam ne keroog xuloo la woon moom tamit noonu lañ ma def ma nekk ci liggéey bu bu bu bu doy waar ñu ne ma heure bi jot na de ma daw luwe taxi dem sama kër sangu luwe waat taxi dem ci takk ba ñu ñëw yegg si ñu ne ginnaaw timis xoolal xoolal loolu biñ ñëwee ba toog man leen waaw yéen lan moo tax takk bi ngeen indi ko ginnaaw timis su fekkee ay aada la yëg leen ne am ngeen bàkkaar bu rëy tooñ ngeen nit ñi tooñ ngeen yàlla benn waaye ne waaw ñun fi ñu ko teg dafa wóor ndax diw moom moom moom lañ gëm ay sunu sëriñ te moom waxtu wi la wax ne lañ la war a takk ñu defoon dama koy bàyyi mu dem ma ne ko sa sëriñ boobu diw moomu yonent bi moo ko ëpp martaba te yonent bi moo ne nañ takk sëy heure bi heure bu la neex nga takk sëy gars yi ne waaw waaw bàyyi leen wax ji bàyyi leen wax ji xam nañ ne nar dafa nar a andi problème ñu arrêté ñu waaw yonent bi nee na bu fekkee ay àllarba la wala àllarba baaxul wala bisu sàngam baaxul wala heure sàngam ban heure la yàlla ban heure la ay nit musiba dalu leen ban heure ban heure jàng leen suratu xàq yàlla ba muy wax aat ak samuud lan la wax fa uhliku bi riihin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayaamin husuma yàlla nee na maa jàpp waa aat mbugal leen ñaata fan sab'a layaalin juróom-ñaari guddi wa samaniyata ayaamin yu ànd ak seeni bëccëg yàlla nee na bis yooyu yëpp dañoo gaaf ban jour a ci bokkul bis yëpp a ngi ci kon ban bis moom moo baax xam nga ban bis moo baax bis bi nga xëy jaamu yàlla xam nga ban bis moo bon ci yow bis bi nga xëy mooy yàlla bis ba baaxul perte nga ko loolu mooy bis bu baax ak bu bon borom xam-xam bi nee na faamal fi kulli yawmin ma chita fa inna al ayaamu kulluha lillah la tadurru wala tanfa soo xëyee defal lu la neex ci bis bu la neex bis yëpp ci yàlla la bàyyee ko amul bis buy lore amul bis buy jëriñaate yàlla mooy jëriñee yàlla mooy lore waaye du bis yi kan moo xam ne bis bu mu judd yaa ko tànnal sa bopp du yaa def demande ne yàlla man kat waaw lëndi laa bëgg a judd ndax yonente bi lëndi la judd woon naa judd lëndi waaye ñi ne ñi ne àllarba baaxul te ñu judd àllarba nag xanaa ñooñu kon dañoo war a dee wala dañoo war a duggaat ci biir biir bi ne ne xaar ba suba ma génn alxamis wala yow ne nga àllarba baaxul te bu ñu seexee bi ñu seetee sa bulletin de naissance dañu ne bisu bisu mercredi nga judd léegi nag nu ñuy def kon du bis yi du bis yi bis yi amul bu bon nit bu xat nit bu tàmbalee di gaay di gaafal addunaam xat na wa saara yataxayal kullu cheyin annahu suum xam nga fooy mujje mooy lépp loo gis rek dafa gaaf loolu ngay image boobu ngay gis xoolal tey nit ñi seen dund ni mu xate ah bul def lii bul toog fii bul wax ak kii guddi nangam heure bi nangam fu ñu mujj muy àdduna xat ci ñoom lépp lu ñu gis rek dafa gaaf
man ñi may dundal àll bi noonu la.
waaw àll bi moo gën a garaaw du ñu leen di bàyyi leen di.
waaw leen leen di man bëgg naa ko ñëw leen joxoon. def ko ñaari fan ne di yow nag ñuy raw ci mbay mi ah gis nga xal xal gis nga حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابل رجل ليس له إلا عين واحد تشعر أمنا يوخن بن خي سوبا نيتلي ورنا لين ñi génn seen bun kër dañ naan nii buñ gisee jigéen di ñëw ñu génn buñ gisee góor ñu taxaw billahi wallahi wa taalahi dëkk naag ndaw soo xam ne plusieurs fois saa yu ñu wàccee ci oto jëm suñu école suñu séenee day taxaw wala mu dëpp ba ci buntu kër gi ba ñu doon mu taxaw mu doog a dem ba ma seetloo loolu benn ñaar ñett ma ne xale yi may àndal kii de day bañ a daje góor ñu ne ma ha man leen waaw femme bii day bañ a daje góor te xale yi may àndal xale yi ndaw lañ kii sax ci la bopp cinq heures du matin lay jóg bu ñu julee fajar ak départ benn fajar wallahi ñu wàcc ma fab ko moom ma jiitu xale yi toog sama ginnaaw ndeke seen nañ mu taxaw xale yi ñëw ba ci digg bayaal bi daal taxaw bañ a dem moom tam bañ a génn man dem naa école ba ba yéeg ma gestu gisuma kenn mu ni waaw li mbaa càmm la ma fabaat kii tourné ma ñëw gis ne ñu taxaw ci digg ek bayal man la lan la ñu ree ma gestu gis femme bi ma ne ma ni waay jar leen nii tardel seen bopp ba xale yi dem mu doog a dem ma ne xoolal kii bu xale yi toogoon bi fu mu jëm est-ce que dina xëy xoolal coono àdduna boobu ndax dañ leen di wax ne booy jaay boo dajee góor doo jaral yenn saa yi ngay ngay nga gis kenn génn daje yow na yow laa dajal de sama yoon bi day na neex de léegi nag bu yoon bi neexul kooku gaafal ne la yow yow ba yow ma xiyaamati gis bu la gisatee du daje yow day dëpp xoolal loolu ah waaw waaw boo boo nuyoo du la fay xoolal loolu ñu xëy na la asalaamaaleykum nga ne doo fay du ma la fay nuyoo loolu fu ñu ko teg yooyu nag la nit ñi war a bàyyi yooyu jullit du ko gëm mu ngoog am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba dajeeg benn patt bët yooyu du ñu xëy dañ naan saye wala ñu dajeeg handicapé borom tànk yu baaxul wala ñu daje kuy raam moo dañ naan sa waaw kii waaw sa jaral na leen jaral na leen ñu simmiiku waaw waa jooju am amul ay tànk moo ko teg boppam ki amul bët moom moo ko teg boppam yow mii sa tànk yi ak sa bët yi yaa ko bàyyee sa bopp ah fajar la ñëppay xëy ku nekk uti léegi yow da ngaa bëgg yow bul dajeeg ku mel noonu kooku bu waree xëy na ah gisoon naa soxna soo xam ne ku ñëw këram tàgge ñoo ne ko diw dee na boo génnee rek day jël morso di upp fi nga jaaru kuf tuf kuf tuf kuf ba nga ba ci buntu kër gi jël bale bale say tànk bale ci biti nee na lu tax kooku di ko wax si dee moom daal bu ko kenn wax diw dee na soo ko waxee loolu rek boo ñëwee ci këram wax ko ne am na ku dee day bàyyi ba nga dem rek mu commencé di la muul bismillahi mina shaytaani rajim di upp jël benn morso di upp lan lay upp nee na sa ngelaw li rek génn kër gi mu fekkoon ne da ngaa jaar mu mu bale ko te dee na wala dee na moom moom doon def loolu dee na kon nañu gëm yàlla nanu ragal yàlla xam ne loolu tukulóor yi di wax dudd korkor sina wawi dara yo tuuti reedu mum ku mun dara boppam la koy defal ku mun dara sa bopp nga koy defal balaa nga koy defal keneen mais dëkk bi moo am ay gaaflu da ngay gis nit ñi bu ñu xëyee suba seen table yeeg seen place yeeg seen oto yeeg mbedd meeg ku nekk ngi diw di sotti waaw sotti fële sotti sotti kër fii xool ñële fële sànni fëyee yooyu yooyu musiba la ci réewum islam réewum jullit ñuy wax ne gëm nañu yàlla fekk genn wàll gi yëpp ay xërëmkat lañ ay bokkaalekat lañ loolu mbokk yi du diine mu ne di nga gis koo benn waaye boo xam ne dina ko jaral mu tëj magasin am wa kaana baaduhum yatasaam yowmul arbia gis nga liñ doon wax sànq am na ñoo xam dañuy gaafal àllarba wa yaqulu annahu yowmu nahs noonu yi bis bu gaaf la bis bi baaxul wa minhum man yatasaamu bi sahri sawaal am na ñoo xam ne ñaan weeru sawaal baaxul te xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam ci la takk soxna Aïcha nee na ci la ma yonent bi denc ci la yonent bi dugg ak man ci néeg ci sawaal kon xanaa ah xanaa yonent bi kon lu baaxul la jël xanaa kon yonent bi amul xam-xam boo xam ne weer yu baaxul mu jël ko déedéet sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ne weer yi weeru yàlla la yàllaa leen moom jaami jaami yàlla lañ amul lu fi nit ëppee sa boroom amul amul amul weer wuy lore amul bés buy lore amul amul waxtu wuy loraate xoolal dinaa leen jox benn misaal am na benn saar boo xam ne kenn du ko jàng guddi ku xam yëkkati sa loxo xoolal ñëpp xam nañ ko gis nga xam nga ko yow xam nga ko de saar boo xam ne kenn du ko jàng guddi aka aka raar nga gis ku ko jàng guddi Ii! gis nga lu tax ban saar la tabat yada abi lahab xoolal kenn du ko jàng guddi fu ñu ko teg benn femme mus na ma ko laaj mu ne ma oustaz tabati laaj kenn du ko jàng guddi ma ne ko ah lu tax mu ne ah damaa dégg ñu koy wax de ma ne ko tabat ya daal lu ci topp mu ne abi lahabin ma ne ko lu ci topp mu ne wa taba ma agna ma ne ko lu ci topp mu ne anhu maalahu ma kasab lu ci topp sa isla na ba saar bi jeex ma ne ko jàng nga ko de te guddi lañ ne parce que bu ne léwa lor nga ma lii nag lu tax nga def lii lu tax lu tax ma ne ko pour wan la ne du dëgg bu ñu xëy suba ma ne ko ah yow de deewoo mu ne waaye waaye bu ma ko jàngaloo tere bu ma ko jàngaloo tere ma ne ko dit yaa ngi nii deewoo
waaye kii ñun saraxule yi tabat yada ñu ne àll boo ko waxee da ngay réer ko dégg nga de kii nee na ñoom saraxule yi boo demee ci àll nga jàng tabar yaa da ngay réer dégg nga waaw alxuraan yàlla ñu ne boo ko waxee da ngay réer alxuraan c'est réer foofu jullit ba pare ñu ne nga ne yow jullit nga ñii ne nañ ku ko jàngut da ngay dee ñii ne ku ko jàng ci àll da ngay réer jëm inna lillahi wa inna ilayhi rajiun léegi fan lañ jëm kenn du jaale ji guddi kenn du lii kenn du lii yëpp nag ay xërëm la dara du ci tawxiid dara du ci imaan dara du ci pas-pas bu wér li moo tax tubaab yi raw ñu tubaab tubaab ak tubaab yi raw ñu kenn du tukki àllarba kenn du dem naa avion yaa ngi nii di naaw guddeeg bëccëg bato yaa ngi daw oto yi di daw ñun dañ fi toog rek ah waaw kenn du jaale àllarba kenn du jaale guddi kenn du def lii gisoo bu ñu ku dee bu ñu ko suuligee ba ñëw dañuy teg benn paan ci buntu kër gi ku dee dañuy jël yére yi weer ko ci suuf kenn du ko weer ci kaw wala bidaa yu bon yooyu kuy tukki càmmoñ ngay joxe doo joxe gauche droite gauche ngay joxe wala loolu ah la ilaha illallah lii foo kañ ba pare ñu ne ñun jullit lañ te sunu diine bëggul lii ñun ñu koy def ba pare ñu ne ñun am nañ imaan jullit lañ est-ce que lii mooy diine kon yii ay mbir la yoo xam ne mbokk jullit yi na ci jullit di set képp ku bëgg dund diine bu leer mu yeboo nga set ci lu mel nii fal muhim an natasaum gaaflu yanbaghi lil insan an la yattarra lahu ala baal loolu nit waru ko sax bàyyi xel nit waru ko bàyyi xel xoolal jigéen ji nga xam ne dañ ko takk rek borom borom këram daf ko takk rek faatu kooku luñ koy wax dafa ay gaaf oto bi ngay jënd rek mu këpp mu mu accidenté lu ñuy wax fas bi nga jënd rek dara dal ko lu ñuy wax dafa waroon am wala ñu ne famille famille si benn oto waaw famille yëpp waaw loolu la ñuy wax ñu ne famille du tukki ci benn oto
keroog boo amul benn waaj mooy gaañ moo ñëw naa moo jëm fi mu war a pàkkee waaw wala ñu wut ay ci yerde mi wala kat tas après te juy ka tas barton bi pour jour Gis nga.
takkusaan kenn julliwul non su bu suur su bu suur non takkusaan laa julli rek mu julli waaw loolu ñu ay yerde mi laaj la après ñu laaj ko wala ñu suur ko après te takkusaan Gis nga.
wala ñu suur ku ñu wax takkusaan julli ah gis ngeen ku nekk benn pàkkee maanaam yi ay mbir lay daal yoo xam ne mbokk yi jullit yi foog mbir yooyu leer ci ñoom da ngay gis koo xam ne buy tukki ndax su ma wax suñu imam la bàkkee te imam la mooy suñu imam la waaye bu ñu laaj dëgg man laaj la man ko suñu imam ko bàkkee ñu suur la ak ak bu war a yow imam bu fekkee fekkee imam yi ñooy def loolu kon ñeneen ñi toog ci ginnaaw ima kanam ima- ginnaaw imam lu ñuy def mu dëgër bopp mu ne kenn du ko suul yàlla yërëm léegi nag bu fekkee ne ñooñu ñooñu naan ñoo ñooy njiit yi ñoo ñoo réer ba mel noonu kon ñeneen ñi fuñ jëm te su ngeen gisee nit ñi réer mooy ñenn ñu ñu jàpp ne dañoo am xam-xam ñoo leen dugal ci yooyu ñoo leen dugal ci loolu benn benn nda- soxna lan la wax keroog dañ ko invité day tuub waaye ne ko mu ne ay imaam yoo xam ne dañuy yor loolu te dañuy jëfandikoo dañuy jëfandikoo alquran te dañuy jëfandikoo loolu.
waaw loolu la léegi nag su ko defee ñu ne kooku imaam la imaam bu am ay xàmb imaam buy sangu ci ay xàmb takk ay gàllaaj takk ay béjjën takk ay xaaw pétaaw ah mos naa dégg ci télévision bi benn imaam naan ñun xërëmuñ de nag bii ñu dugal ci géej gi ñaan la du xërëm nag buy dund ñu dugal ko ci géej wala ñu rey ko ci géej loolu lan la mu ne buñ koy rey dañu ne bismillah suñ doon xërëm duñu wax bismillah dégg nga lu tax rey ñu ko ci biti lan moo tax ñu koy rey ci géej gi lan moo tax ñu bëgg a direct ji dugg ci ndoxum géej gi ah loolu mooy xërëm bi parce que rey ñu ko ngir yàlla te nag bu mel noonu wala yàpp bu mel noonu lekk ko dafa xaraam yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah léeg-léeg nga dëkk ak ay buxaaba ci koñ ñu rey di saraxe yàpp yàpp boobu dafa araama lekk de moo wax leen ko tey ndax yàlla taxul ñu rey ko kuñ ko indi sa kër neel waa ji baax na jëlal baax na jërëjëf jazakallah jëw yóbbul loolu xërëm la ah yooyu yëpp ay xërëm la juróom-ñaari bool laax ak juróom-ñaari ceeb ak juróom-ñaari sondeel ak juróom-ñaari guróog juróom-ñaari malikaan ak juróom-ñaari këyit yu weex ak juróom-ñaari mbax naag yooyu yëpp xërëm la parce que ki koy génne dafa am ku ko wax génne ko waaw léeg-léeg nit ñëw jow ne la listixaaral ma man dañ ma koy wax dama yëg yëg am ku monté ma asalaamaaleykum sa dama lay gis ci internet bi dama bëgg kii ngay listixaaral ma ma ne ko listixaar day ba ma xamoon yaa koy defal sa bopp waaye listixaar bu ñuy defee nit man xaw ma ko ah nuñ koy defee ma ne ko da nga dem julli ñaar raak jàng faatee xul yàlla kaafir faatee xul laa daal di jàng ñaan bi boo ko mënee yow Oustaz gis naa benn femme démb ak bàttu démb dañoo sama place yow mbuus mbuur moo ci nekk mbuus bi lu ci nekk
mbuur mburu waaw da koy jur ay chocolat waaw waaw da koy da ko wàcce foofu nag ku ñor moo jël ah est-ce que loolu ci wax day saraxe wala dafay xërëm ah man sa fekkee day saraxe de baax na souvent kuy kuy tukki mooy saraxe mburu souvent kuy tukki souvent ñi tukki ñooy saraxe mburu souvent booy tukki lu nekk dañ laan nga génne ko ñi ay soow ñi ay nangam ñi nga xam ne moom dañuy ragal affaire yu jinne ñoom ñooy rendi ñooy tuur deret ci kër comme kër gu bees goo tax baax ñu ne la bala nga fiy dëkk tuur fa deret waaw yaa nga fa kaamil kaamil yi nag gis nga yooyu ngeen di gis gaa yi di def naan alxuraan lay jàng ak alxuraan lay fajeek yooyu dañ koy làqatu rek dafa am lu nekk ci ginnaaw alxuraan bi xam nga ñeme wu ñoo def loolu kese kese kese kon nga ni lii xërëm la léegi nag boo ñëwee ñu ne waaw nañ ji nañ njëkk a jàng alxuraan alxuraan bi dañ koy nëbbe nit ñi waaye ci biir du moom rek waaye camouflage la tudd ñett ñeenti mbir a ngi nii yëpp benn la da ngay dégg kii ñu ne moom ay rawaan la yor ñii ki- rawaan lay faj kii ne rab lay faj kii ne ay jinne kii ne seytaane yëpp benn la rawaan jinne rab seytaane yëpp a yem yëpp benn la waaye ñu dañ koy làqatoo ñoom ñëpp ay ay njabarkat lañ yal nañu yàlla jubal kon su ko defee di jël ay picc tamit di leen sànni fu ñu jublu nga ni bu ñu demee ndeyjoor nga ni baax na bu ñu demee càmmooñ baaxul ah yooyu tamit musiba ba baaxul wala picc mu weex ak wala picc mu ñuul ak yooyu musiba la benn waaye nee na ma tey ci suba am na benn kër goo xam ne ginaar gi fa nekk mën na cinquante kilos ginaar gi kenn du ko rey foofu rek lañ koy bàyyi ma ne ko loolu nag mu ne ma ginaar gi mooy saraxu kër gi ma ne ko indi leen ma ko ñu añee ko mu ne ginaar googu est-ce que nit ñeme na koo lekk di nga dem ci kër yi nga fekk fa benn xar bu weex souvent tàpp lay nekk kenn du ko laal xër xërëm la wala ñu koy bàyyi ba mu dee ñu sànni ñu ko mbalit xërëm la te loolu ngi suñu kër yi wala lenn ci dëkkandoo yi loolu xërëm la boo ko defee ginaar boo ko defee xar boo ko defee loo ko mënta def xërëm la loolu jinne ji lañ ko sarax wala ñenn ñi naan dama ko fi def pour lu war a dal ci waa kër gi dal ci kawam xanaa malaaka bi day juum xanaa malaaka bi moom bu ko yàlla yónnee xar bi mun na ko tere xar bi ñaata ay xar ñoo nekk ci kër nit ñi dee bàyyi xar yi ah loolu mooy xàmb xam nga xàmb loolu mooy xàmb da ngay dégg ñu ne lii tuur la borom xam-xam yi nee nañ tuur xanaa dañ ko faa tuur tuur lii tuur la waaw dëgg la da parce que dañ ko faa tuur hmm? ay ndaal la ñuy ut samp ay kuur def ci soow commencé di ci def lekk lu ñuy def ci kër gi tibbal ci tibbal ci tuur bi kenn du lekk te lekkul kenn du naan te naanul ku feebar ñu sang la ci waaw boo waxee ñu ne mook sunuy maama àndoon loolu du diine yooyu nag nañu xam bis ni ki tey mbirum xërëm la mbirum seytaane la ñu moytandiku tey ñu bari ci dëkk bi danañ jóge ay France jóge ay États-Unis jóge jóge jóge jóge ci àll bi di sangu si bu ñu sanguwul du ñu normal day ñëw sangu ñibbi da ngay dégg ñu ne at bu nekk dinaa dem benn yoon sangu ji ñibbiwaat loolu xërëm la picc yooyu ñuy jënd di ko raay ci bopp yi di sànni baaxul jullit du ko def rëdd yooyu ñuy rëdd bu ñuy tukkeeg bu ñuy seet baaxul loolu sax baaxul parce que yooyu moo lay yóbbu su xam nga lu muy yóbbu mooy ku xamul bu la gisee day dem def ko wala waroo ko def dara baaxu ci yooyu ñu koy layee dara amu ci waaw loolu jullit dañ ko war a xam mooy tëndiku parce que da leen di dugal ci bokkaale da leen dugal ci njabar mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala fal waajib al iqtidaau bin nabi li war mooy jullit na roy yonent sallallahu alayhi wa sallam haysu kaana yujibuhu moom yonent yée yéemoon na ko def lu ko soob ci waxtu wu ko soob te du gaaflu du picculu du naawtalu yooyu yëpp daaw ko def sallallahu alayhi wa sallam kon julli bi li ko war mooy mu jéem a dugg ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def mu bàyyi gaaflu bàyyi picculu bàyyi naawtalu bàyyi ay rëdd bàyyi ay comme ni ngeen ko xamee ndax yooyu da lay dugal ci xërëm da lay dugal ci bokkaale day tax àdduna bi xat ci yow ñaareel bi ci xadis bi mu ne rannatu seytaan mooy yuuxu bi seytaane yuuxu qaala alxasan rannatu seytaan mu ne ñëw na ci tafsir baqi ibnu muxallad anna seytaan ran na arbaa rannaat seytaane yuuxu na ñeenti yoon seytaane mës na yuuxu ñeenti yoon rannatun hiina luina yuuxu na bi ko yàlla rëbbee ne ko bis ni ki tey dàq naa la ci sama yërmande seytaane yuuxu na wa rannatun hiina uhbita yuuxu na keroog bi ko yàlla wàccee jële ko ci pee yi sell yi wàcce ko ci suuf keroog yuuxu na wa rannatun xiina wulida rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba yonent bi alayhi salatu salaam juddoo seytaane yuuxu na wa ranna xiina nuzilat fatihatul kitab keroog ba ñu wàccee fatiha seytaane yuuxu na ñeenti yuuxu yi la seytaane mosa yuuxu bu njëkk bi mooy keroog ba ko yàlla rëbbee ne ko bis ni ki tey ku ñu jam nga ku ñu dàq ci yërmande yàlla nga keroog seytaane salleeru na yuuxu na waaye yuuxu na biñ ko wàccee ci suuf si ndax fa mu nekkoon yuuxu na keroog bi muhammad juddoo ndax xam na ne pare na bokkaale day denc ci kaw suuf waaye yuuxu na keroog bi ñu wàccee fatihatul kitab qala said ibnu jubair lama lu'ina iblis taxayarat sawtuhu taxayarat suwaratuhu an surati almalaika wa ranna ranna fa kullu rannatin minha fi dunya ila yawmi alqiyama said ibnu jubair nee na keroog ba yàlla rëbbee iblis nee na forme iblis dafa changé dafa nuroo woon ak malaaka yi waaye forme bi changé nurootul ak ñoom bi mu xoolee boppam mu gis melokaanam soppeeku mu yuuxu yuuxu boo xam ne ah allahu akbar nee na yuuxu boobu mu ngi fii sax ba yowmal qiyaamati yuuxu iblis boobu jar na yuuxu de ku yàlla rëbb moom dafa xam kan mooy yàlla moo tax bi ko yàlla rëbbee mu yuux bi ko yàlla rëbbee lan moo ko dal mooy formam moo changé bi mu xoolee boppam mu gis mu changé mu salleeru allahu akbar mu ne ar ran nay ni ñaari yuuxu yépp kaddu la sawt ñaar yëpp kaddu la Saïd ibnu Jubayr nee na ba tey jële na ci ibnu Abbas mu ne lamma fataha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam makka ranna iblis ranna nee na keroog ba yonentu alayhi salaatu wasalaam ubbee makka daaneel xërëm yi ñaata xërëm la woon ñetti téeméer fukk ak ñett kaaba gi set wicc iblis dafa salleeru yuux allahu akbar nee na bi mu salleeroo ijtamaat alayhi junuduhu soldaaram yépp ñëw wër ko armeem bi moom iblis rawahu alxaafis hadis boobu mbokk yi xaafis moo ko solo gis ngeen kon iblis ñaata yuuxu la yuuxu ñaata la limal yëpp
ba ko yàlla rëbbee ak bu mu wàccee suuf ak bu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo ak ba faati wàccee ak ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanale xëy
moo di juróom benn bayu aqaba ñaareel benn bu mujj bi rek ki wax na juróomi comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy jaayante ak waa Medina ne leen dama comme ma jógee Màkka ñëw Medina ba mu leen ko doon wax loolu yuuxu na wa di bu yëgal pour yëgal waa Màkka ni yonent bi mi ngi jaayante ak waa Medina
ak wan gis ngeen kon yuuxu iblis la yu- yuuxu yëpp lan nga ci jàng yépp toroxtaangeem la yépp toroxtaangeem la du bëgg jullit am ndam du bëgg nit jaamu yàlla du bëgg nit nekk ci tawxiid du bëgg nit am pas-pas bu leer kon looloo tax ñu war a góorgóorlu ba moytandiku xërëm yooyu ñuy jàng ak loolu ñuy wax ak ay xeetam ak ay façon ak ay wàllam kon mbokk yi loolu moo doon darsa tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullah